na fi mu nekk nii ñu ngi leen di sant di leen gërëm ah di leen di leen ziar di leen wax ni leen soyez les bienvenus ci seen beneen numéro allo 12 fi nekk nii nag ku ne xam na ni semaine bii ñu génn actualité bi xumm na ndax ah, wax dëgg ne xale politiciens yi saa bu ñu jógee surtout bu ñu jóbee élection ak ci période yi ñu toll deux mille vingt trois bi nga xam ni ngi jëm ci deux mille vingt quatre nekk année boo xamante ni année bu yëngu la année la boo xamante ni ah, ku ci rasta boo ko sàmmul tuuti ñu daal lay nal ndax it ci wax ju ndaw rek mën nañ la ci faagaagal baa ñu indi la ci problème boo xam doo xam foo koy expliquer ndax fi nekk nii euh, problème yaa ngay tàmbali. Mm-hmm. démb Kër Massar c'était extraordinaire kin musul gis lu mel noonu. ci nit ñoo xam ne ken xamul fan la ñu jógee Ousmane Sonko woote ba mu wootee ñu ni ah xëy na ci procès bi nga xam ni ci la jëm dana wax gars yi ni leen dal leen ànd leen ak man gunge ma ma dem pare ba wuy ji waaye waxul loolu Ousmane nee na wuy jiwul tey wuy jiwul suba. après mu jeex. te itamit buñ ko jéemee laal. ba xale yi génn nañ fa way boo xamante ni soo ko laalee dañ ko remixaat yokk ci ay kàddu yu offensif ndax Ousmane Sonko nee na gàtt sa bi maanaam ku ko wokk mu xuri la ku ko xuri mu def la góob fi la yëf yi fi ngeen ko tollee la sax mën na ko gën a weesu parce que ñun nekkuñu ci jamonoy gàtsa gàtsa parce que gàtsa gàtsa goo gis masa masa ci toog. Mhm. réew ku ko yore da ko yore ci xel ku koy wut da koy wut ci xel. senegal nag la baaba maal waxoon ñu bu nu bokklu askan ñoo bokk réew mi. suñu bokk réew mi sax ñoo bokk yàlla suñu boroom nanu éviter violence ci réew mi nanu éviter di woote violence parce que fii réew la réew boo xam ne réewu état la état dafa am nu muy doxe constitution am lu mu loi ak réglementaire la ñuy doxe fii kun fi convoqué da ngay wuy ji rek mais man Ousmane Sonko man maa dégg te làmmiñu bopp mu ni Tapha Touré bu ma woowee dina wuy ji nanu dem procès mais lan lañ doon wax convoqué nañu procès nan ko teg ci yoon ku nekk dem wuy ji yi nga xam ne moom la son ko indi ni preuve compliqué la mu indi ay preuve compliqué ki nga xam ne mooy Adji Sarr nee na am na ay preuve am cour gi dugg na si baat mi ñu indi ñu wax mais jaru xeex jaru xuloo parce que xam nga lu tax da nekk ci réew moo xam ni ku nekk ñi nekk APR am na ay mbokk yu nekk PDS ñu nekk PDS am nañ ay mbokk yu nekk ci Sonko ñu nekk ci Sonko am na ñoo xam ne ñi ngi Massimou Diop la na ànd Serigne Diop Sabata réew mi benn parti la parce que parti boo gis rek koo fa mu fay militer ba parti ba jaral ka xeex raye bakkanam parti boobu beneen parti ba muy xeexal magam walla rakkam wala frèram ma fa man daal maa ngi woote li maam Abdoul Aziz Dabakh woote woon nunu tàppe xol yi nunu remise si tàppe xol yi gis nga boo ko laalee le nu remise mais mën nañ remercier waale nanu tàppe xol yi nanu delloo si waat dàq seytaane te gis nga réew mi dafa am pétrole dafa am gaz te réew bu amee pétrole am gaz am phosphore am zircon am fer am suuf loo nga xam ni mooy seytaane buñ koy ubbi rek malversation yi dugg si profité si te boo yaa ngi côté Mali gi ah, am na si ñoo xam ne dañuy wër di yàq réew réew xadar luñ ko de yàq nañ ko ana Ben Laden dem na mais fii kenn desu fi kon nag nanu woote jàmm nanu woote salaam teg mbirum àtte bi na Ousmane wuy ji ñu àtte ka ci dëgg. kon yëf yi buñ ko ci dëgg. teg ci dëgg. Ah, mais boo dee doo wuy ji mais problème bi mooy boo dee doo wuy ji ñun la da ngay wuy si mais loolu tension lay jur. kon nag Ousmane njëkkoon na wuy ji dem na ci première personne yu njëkk yi muy yéeg wàcc yi moom Ndeye Khady Niang après moom ak kee yëg ñu koy commencé woon nan ko yëgalee rek un mois la ba trente jours ñu ngi ci vingt neuvième jour nan ko mu jeex. léegi nag ñaari question xam naa moo tax ñoom fi nekk nii waa kër Sonko yi. affaire visi moom ni du ñu dem ñoom ci seen bopp ñoom nee nañu du dem ndax ñaari question moo taxaw ci seen kanam. Mhm. ndax mbiru politique ñoom dañ ni moo dugg ci beneen bi si mooy ñoom dañu jàppoon ni non-lieu mooy am ndax ñoom indi nañu lépp loo xamante ni ay preuve la wane ni ñoom laale ci taxewuñ ci ñoom waa kër Ousmane Sonko. Mhm. biñ ko yóbboon a chambre de criminel. Mhm. nga xamante ni foofu boo fa xasee bu dugg. Mhm. ah boo moytuwul mën naa bañ a bokk ci élection yi xam naa looloo tax xataraayu gi bañ gi yooxoo Ousmane nag nee na dem na ba ci bàmmeelu papaam ñaan démb dafa yërëmtul dem na ni yaayam na ko ndax def na testament pare na fi mu ne nii al mujahidin woote na li nga xamante ni daal di def li nga xam mooy shahaadaam ni ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna sayyidina muhammad rasulullah julli ñaar rakka ni Macky Sall ray ba mbaama problème ah, bi nag mooy ah ah, ah rayante moom jot jaru ko fi. iltifada bi. jaru ko fi xale yi nee nañu la bataille il est inévitable. fi mu ne nii sama dem na ci la joor Diop nga ne Latir Diop. sama xel dem na ci ki nga xamante ni moom mooy Sangomar. ah sama xel dem na ci. ki nga xamante ni mooy Alioune Sidé Diatta ah fi mu ne li may ñaan. léegi nag sa xel mooy jàmm ci réew mi ñooñu sa dem ñëpp. lu seen fii la Dior ana la ana jéggi raay ba anam fasa ma mujj jéggi fas bi sax est-ce que jéggi na xam nga tamit gis nga guerre guerre sax moo fi xajul wax dëgg yàlla ndax man guerre gu njëkk ga muy ba set a bu njëkk benn na ma ni ma loxo kajoor day weesu loolu looloo tas kajoor ñetti fan yi nu deux cent mille la yàlla dogaloon mooy téye ko seg bi téye naa ko plus de trois jours quatre jours banque bu ma dem ñu ne xeexa am man leen man dama soxla sama xaalis fu ma koy rëdd bi ñu ne ma Touré benn banque amul ubbeekul kon nga xam ne xeex bi day am conséquence man daal je préféré ñu calme Sonko bu bëggee sax mu nañ defee jugement biir këram loolu yëpp waxtaan la rek. vocal vocal rek. vocal rek baax na waaw mais vocal groupe vocal ubbi. ma xam toog këram. vocal aji wax léegi tamit nanu ko wax ay avocat wax mu jeex. mu jeex parce que tamit affaire bi tamit méttiwul. vocal la ko parce que bu dee procès public la ñu mais nan koy YouTube. Facebook Instagram TikTok yomb na. xale yi TikTok baa ngi fi am nañu temps. mais non mais TikTok. moo xeex Ousmane def. Euh, def direct bëgguma ko. su def direct. su kii nu mu ma xam def direct. procureur président bi substitut procureur méttiwul di. mais Ousmane Sonko lu mu bokk ak dara. moom programme visi laa gis si moom de. ndax lan ndax mu fees bi. parce que xam nga Sénégal tamit. ni lamp yi tàkkee foofu. waaw ambiance bi kii. vraiment ba pare mu sol tenue militaire. Mhm. ba pare manifestation bi li ma ci yéem. mooy am na ba mmh, jeex. amul benn problème Kër Massar la mi xat-xat amul benn problème amul xeex amul xuloo jooyee daal bare na fa. lu jooy. jooy ah, nañu jooy nañu jooy jooy ba sonn xale ya jooy nañu. Ah. Ousmane ba pare euh, am na ci koo xamante ni benn leaderu kii bu leen jooyloo ñoom ñëpp. wax na ba yàgg ñoom daal fan yi jooy nañu ko mi nekk fa bu jëkk nag bu jëkk xam nga nag gis nga. Ousmane nanu kit paa. gis nga. Dambo jël fa woyu nanu kit paa boobu. oh Ousmane Sonko nanu kit paa. ah bon mooy woyu nanu waaw mooy woyu nanu kit paa bi. na ma kit paa loolu de xalaat dugaluñ ko. na ma kit paa Ousmane nanu kit paa. man la ki la wax ki dee kite. Ousmane nekk fa naan naan leen naan leen si vous savez au mari si tu savais. combien a na ku fa ko fa dóor ba mu réglé. ñu naan kii tamit Ousmane Sonko xam kii tamit dégg naa dem Sonko. kii ñëw na ba foofu tamit euh, kii kii ki nekkoon fii a fii rek maire dañu d'accord que c'est un milliard. kookal la mooy ki kii nekkoon Khalifa Sall Khalifa ma gis dafa naroon Khalifa ah, ah, mais kon xalifa ñaar la ci réew ah. kenn rek la xam naa. moom daal nee na bul jooy parce que man jooyoon naa fi amul benn solution. vocal bul jooy ba mm. pare ah mm. vraiment. Mm. xalifa saa dem na ci moom. vocal ka xaw ma lan naan ko bul jooy parce que man jooyoon naa fi. président rangoñ fi intéressé wu ko jarul pleurer. mais xalifa na agressif. si moo ko fa nekkaloon Habib si moo représenté woon. moo mun xalifa xay moom ndeysaan mag la moo xamante ni ndeysaan ñëw na taxaw daan ni moom li mu gis fii mosu ko fi gis en tout cas démb c'est Barthélemy Dias gisuma ko fa parce que tamit na démb waa Pastef ñoo wat du waa Yewwi Askan Wi mais y avait quelques de Yewwi Askan Wi yoo xam ne ah! ñëwoon nañu xam naa si dara de lii fii hmm. ma gis lii fii bees yi ma gis hmm. ah kuy xeex de na nga wut loo jiital sax syndic sa man kin ko njëkk essayé ci moom ba léegi mi ngi dans le coma ah sérieusement parlant nanu lii fii bi ñu ñëwee kin ko njëkk essayé moom ma nga almer waaye xeex nan ma ko wax mm. parce que man citoyen beneen dëkk la ma jël vol dellu sama dëkk parce que man tamit xeex man dama ko ragal dama dama ah. synergie recromagé arrangé wu ma liif arrangé wu ma feebar yu bari dafa ne sama yaram man jaaykatu gerte yeeg marchand ambulant yi jàmm daal nga xamante ni ñooñu ci mbedd mi la ñuy amee seen wërsëg bu xeex amee ñooñu fu luy jëlee seen wërsëg loolu aussi nañ ka xalaat yàlla yàlla def jàmm ci réew mi. jàmm daal tey tamit lépp loo xam day yee fitna yàlla na ci yàlla musal. waaw en tout cas problème bi na ci ñëpp jàpp. parce que tamit lu waay jënde jàmm. Hmm. jàmm jar na ko El Hadj Malick Sy radiyallahu na wax lu mel noonu lu waay jëndee jàmm jàmm jar na ko nanu woote jàmm ci réew mi te fexe dossier bi mu mujjee ci jàmm bu naree indi ay ah. yàlla ko fi yàlla yamale ah dinaa daal. waaw métti